ci ba tey ci anas radiallahu anhu moom ngeen déggee ci ba tey ci li may wax de ku baax ku mën a doon malaaka yëpp a ngi lay ñaanal yàlla waaye ku bon ku mën a doon itam ñu baax ñëpp a ngi koy rëbb waaw te ñu baax ñi buñ la ñaanalee yàlla lu baax ngay am malaaka yaa ngi lay ñaanal lu baax lu baax ngay am ñu baax ñi nag wëlbateku di ñaanal ku bon ka lu bon kon ku bëgg a baax ku bëgg a am lu baax bokkal ci ñu baax ñi rek ku bëgg a mucc ci yu bon yi dawal ñu bon ñi rek kon nag lay salaka minal amri minal amri shay'un jéggee leen ko loolu lu mel noonu doomi bàyyi baabal lamin nett lil nañu ko nee na dafa yittewoo dafa nekk ak bàyyi ci barab boo xam ne bu ñu am yaakaar la ci nangu ñaan ci réew yi nga xam Makka la wala boobu fan la baabal lamin ñi baabal lamin ña Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahima Niass moo ñu ko nekk nit bàyyi na ko waxal li nga gën a bëgg luy sa yitte ma ñaanal la nga am waxal loo bëgg mu ne ko man daal sama yitte mooy nga ñaanal ñun say doom bi ñëpp ñu juboo bëggante mu ne ko loolu du sa yitte waxal leneen kon loo ci déggee loola yitte bàyyi la du sa yitte mooy xam nga li ma doon waxee ne yitteem la waaye won na ko ne ko loola man maa ko méngoo kon bëgg leneen lu dul lii keneen wax ko dañu ñaanal ñu doon ay wëli yu mu ne ko loolu du seen yitte ñaan naa ngeen doon wëli yu ndax ngeen juddu loolu yàlla may na ko may na ma ko ba pare kon ngeen jegeel seen jég rek ci yooyu ba tey jëlee ne ci anas radiallahu anhu mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam mosul dañ di xulloo ci jullit suba bëgg muy génn àddina mosul dañ di xulloo waaye nag kon xaddis yi ngeen jé déggoon yëpp dégg ngeen ci ne léegi jullit suba lañu wax yeneen ci bëpp muy génn àddina bàyyiwul jullit bàyyiwul xuloon ci jullit ba te loolu daaru xut nii nettal na ko ak abdurazaq ak xakim loolu mooy li siiw mooy li daj ci alamul islam yi kon ku ci mën a guloon xuloon na am ko fu bind ñëpp jàng ko xeet ya bari na waaye lu ma doon tàmbali léegi ci la jëlee nañ ci xasan ibni aliyin sëtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xasan mi nga xam ne ali ibni abi talib moo ko jur ak fatimatu bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xasan wax leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma ay baat yoo xam ne dama leen daan wax ci xunóot ci wetam wetam mooy li wetam ci fak wetam lii la allahuma ihdini fi man hadayta wa aafini fi man aafayta wa tawallani fi man tawallayta wa barik li fi ma aatayta wa qini sharra ma qadayta innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadillu man waalayta ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لي اي بات لا يو خامني اصحاب سنن صلو نان كو جيلي سي امام حسن ne mu ne moom yonent moo ko jàngaloon lii gannaaw ji lisi ba gannaaw wet la waaw ba tey daa nisaa yu dolli ci ne wa sallallahu ala nabi muhammadin loolu la daan mottalee wax ja bu yegg si waan ci rabbana wa taalayta ne wa sallallahu ala nabi muhammadin kon nag loolu tuuti la ci malokaanu julli gudd na de luñ ko tàmbalee ba léegi waaye yaakaar naa rombaguñ dara lu ngeen wax ne lii de jarul jàng xam leen na yaatu yittewoo leen xam-xam kenn mënul jëf bu baax lu dul danga ko royee ci ki nga xam ne mooy yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag suñu waxin suñu jëfin suñu yëngu suñu dal yonent si léppam njàngale la nañu doy royuwaay ñu koy royee ci lépp ku ko roy ci lépp rek te lépp baax na ku def nag ci sa xelum bopp yàgg sa bopp ndax kat yàlla ku yónni rahmatan lil alamin kon ku bëgg a am yërmande ja rek def ko muy sa royuwaay yeneen yàlla xiir ci lim bëgg ak lim gërëm ci wax la mbaa jëf la yonente sallallahu alayhi wa sallam nekk di sunu royuwaay ñoom mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu taxawloo foofu ba beneen àllarba gannaaw sunu gàmm gi ngeen di ñaan yàlla jaam ñaan yàlla la am ci leen ñaan yàlla ci seen guddi seen bëccëg jàmm nekkal leen nekkal mboolem seen i soppe ci lislaam seen i soppe ci tarixa bi seen i soppe ci faydu bi seen i soppe ci kër gi di leen ko ñaan yàlla ñaankat lu mu gën a yaatu na la gën a nangoo ñoo ngi jubli ci loo xam ne itam islam bu sell la muy gàmm gi ñu bëgg a taxawal fàttaleku lenn ci jikko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan leen yàlla bés boobu ñëw ci ñun ci jàmm ñu fekkee ko ci jàmm yàlla rafetal ko ci daay rek bàttin yàlla gërëmal ñu ko te lépp lu koy rafetal itam yàlla yombalal ñu ko maa ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk sa wét ak sa wéttaleku yi téewal gis bi ñaanal yàlla di ñaanal sa bopp di ñaanal képp ku la jege ci gëm yàlla di leen ko def ñaan kat lu mu gën a yaatoo ne la gën a nangoo yéen yàlla defal jàmm ñu ne mboolem jullit ñi mboolem bu xeet def
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس أخلق الآن إلى أسرارك محمد وعلى آله أفضل المولى العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس أخلق الآن إلى أسرارك محمد وعلى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ndax dañu jàngale place pilote place pilote bi mel na ni li tax bi jàngale tey ñaari place bi mu xëy ne benn place bi rek la parce que dafa wax ni ñu ngi def xunóot gannaaw ruko di mu ni gannaaw sami allah liman hamida rabbana lakal hamd dama gis ni fii lu jiitu ruko la ñuy def xunóot waaw moo bëggoon waaw maa waxoon sànq ne ci mujjub dàtt bi buñ ci tudd leneen lu dul gannaaw groupe ko rek ci xunóot ngeen laaj ma nee naa leen ngir yi bari na wuti na nga def ko gannaaw boo rukoy ba pare bu la neexee it nga def ko njëkk rukoo maanaam daal foo ko ci tànn def baax na lii la imam Malik wax te ñun ci ngiram li ñuy atte woo moo tax ñu koy def njëkk rukoo kon gannaaw njàng ma ca rakkaab ñaareel Fatiha ak saar wa ci jullit ba imam Malik ca la wax ne ca la ñuy defee xunóot soo ko fàttee nag bu rukoo itam bàyyi bu rukoo ba tigi ci rukoo da ko jàng balaa nga ci jóg lii mooy atte imam Malik ci xunóot kon ñaari barab la foo ko ca def baax na waaye boo ko fàttewulee daal def ko njëkk ngay rukoo moo gën a mat ci ngiral imam Malik
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ñoo ngi ba tey ci kitaabu salaat ci rebtaaj aljaami lil usul fi ahadisi rasul sallallahu alayhi wa sallam xatum ñaar téeméer xaaj bu njëkk bi buntab tey adduwaa u qabla salaam ñaan gu nit di war a ñaan ci julli njëkk mu sëlmal ci lim ñu jëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan ci jullim di wax ne allahuma inni audu bika min azabi alqabri wa min azabi annaari wa min fitnati almahya walmamaati wa min fitnati almasihi dajjali loolu daan na ko wax beneen riwaaya dolli ci ne daan na ci teg ne allahuma inni audu bika min almasami walmagrami benn waay wax ko ne ko li ngay muslu ci magram de bari na lool mu ne waaw ndax waay bu fekkee dafa nekk di ku am magram te mooy bëgg alal lool bu waxtaanee rek day fen ci ay waxtaanam te bu diggee itam lam dig da koy wute du ko def du ko mate te loolu riwaaye la bu ñett yëpp solo bëgg alal ak bëgg àddina kenn mënu ko xaajale bëgg alal baax na sax waaye bëgg alal bu la jëmale ci yoonu yàlla yoonu njub baax na bëgg alal bu la jëmale ci àddina rek nag loolu la ñuy muslu kon nañu ñaan yàlla mu may ñu alal ci sunu ko loxo yi te may ñu gëm yàlla ak wóolu yàlla wàkkilu ci yàlla sunu xol yi bu ñu amee loolu alal ja du ñu beewloo bu xol ba rafetee nag ci gëm yàlla alal ji bu ñëwee moom rek lay gëm kon baat bi loolu lañ ciy déggee lu yeneen su daan ñaan lu muy firi allahuma yow yàlla inni naka man sab jaam te baatub jaam baat bu neex yonentu la sallallahu alayhi wasallam ci ay suram te mooy abdullahi mu ne maa ngi lay muslu audu bika maa ngi lay muslu min azabil qabri ci lépp luy mbugalu bàmmel bàmmel am na ay mbugal de yow yàlla musal ma ci wa min azabin naar lépp luy mbugalu safara musal ma ci safara dana jëriñe waaye dana mbugale de mbugalam musal ma ci ndax mucc ci safara te safara day jëriñe du ñaanin xanaa kay da ngay ñaan mucc ci loru safara bum la lakkal sa yaram bum la lakkal sa yére bum la lakkal dara loo xam ne bëgguloo mu lakk la nga bëgg nag mu lakkal la ko loola moom bu la ko lakkalul day mel ni ay lor la ci yow kon muslu ci mbëgalu safara ak wa min fitnatil mahya fitnay dund dund am na fitna lool fitnay dund yay weddiloo nit yàlla yow yàlla yeneen ci musal dund moom bu fekkee xolu borom mu ngi ci gëm yàlla gu leer naññ gu wér tëng dund ba lu neex lay doon ci borom waaye buy safaan ba lu métti la kon fitnay dund yépp yow yàlla nang ci nang ma ci musal wal ma maati ak deeyit la cay fitna yàlla nang ma ci musal te fitnay dund bokk na ci sax alal ak ay doom yooyu yépp bokk na ci alxuraan xamal nañu ko fitna lay faral di doon waaye ca kan nag ba tey nay borom am na ñoo xam ne alal yaak doom ya da leen di gën a yóbbe gëm yàlla wóolu yàlla wàkkilu ci yàlla jaamu yàlla am na ñoo xam ne nag safaan ba kon yow yàlla yal na ñu musal ci fitnay dund ak fitnay dee wa min fitnatil masihi ad dajjaali masih dajjaal kenn la ci ñi nga xam ne war nañu feeñ ci mujjug jamono te loolu xadis yi ko wax bari na te dinañ jàngi ca kanam lii tegtale ci màndargay bés penc yi danañ ci fekk waxi masih dajjaal fitnaam lu rëy la yow yàlla yal na ñu ci musal ñu bañ a sori ci leeral lan la ndax dana ñëw incha allah beneen riwaaya lu mu ci dolli mu ne allahuma yow yàlla inni naka man sab jaam sab yonent a'udhu bika maa ngi lay muslu minal mahsami ci lépp luy bakkaar ak fëgg fu mu juddoo ma def ko wal maghrami ak fëgg alal joo xam ne day yóbbe nit ci melokaan yi yonent wax ne bëgg alal loolu lay def ci xolu borom bu waxtaanee fen bu digee wuruj loolu la baat yooyu di tekki ba tey ñu jëlee ci abu bakarin as siddiq abu bakar siddiq moom lu ñu jëlee ci moom yi ñu jëlee saaba yépp a wér de waaye nag moom moo tudd siddiq lu ñu jëlee ci moom lu wér la gën a te doon moo wax ne li am mooy yonente sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax yonent bi aboubacar wax na yonent bi ne ko alim nii duaa an ad'u bihi fi salaati yow yonent bi xamal ma ñaan boo xam ne dama koy ñaan ci sama biir julli yonent ne ko qulil quli allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaxfiru zunuba ila anta faxfir li maxfiratan min indika warhamni innaka anta alghafuru rahim rawahu alxamsatu illa aba daawuda lii la aboubacar wax yonent xamal ma ñaan koo xam ne dama koy ñaanee ci sama biir julli yonent ne ko waxal ne allahuma yow yàlla inni naka man sab jaam zalamtu tooñ naa nafsi sama bopp zulman tooñ yoo xam ne kasiran bari nañu lool tooñ naa sama bopp tooñ yu bari ndax lépp lu dal jaam bi ci ay ay yum mën a doon alxuraan xamal nañu ne ci jaam bi lépp jógee lu ñëwal jaam bi nag ci lu baax yàlla la jógee Seydina Ali ibn Abi Talib benn bis mos naa rodd ñu koy masawu mu ne du dara lu dul bàkkaar yu bari rek ci man moo ju rodd rodd bi moo wax loolu kon mu ngi doon firi rek aw waxee alxuraan ji kon nag yow yàlla man tooñ naa sama bopp tooñ yu bari wala yaxfiru dunuba ila anta kenn du bale bàkkaar yi nag lu dul yow kon faxfir lii nag ma jéggal maxfiratan jéggale goo xam ne min indika ci yow rek lay jógee nag bul ma jéggal jéggal bu jógee fenn fu dul ci yow rek jéggale mën naa jógee feneen fan jéggale ga nekk mbugal nekk toroxtaande ci borom ndax bu fekkee ne def nga lu la nit ñi yëgal jéggal la ca waaye yëgal nañ la ko ba toroxtaande yëgal la ne yow lu ñaaw li yaa ko def nga yëg ko ñu yëgle ko ba ñeneen yëgal la ko njégale googu dafa ànd ak toroxtaande bu jógee ci yàlla nag mooy la ñu bëgg kon yëgale bu jógee ci yow laa bëgg kon nag bul tooñ kenn lay tooñi jaam bakkaar yu jëm ca boromam loola jaam bi bu ko baloo yàlla yàlla baal ko ko lu jógee nag ci jaam jaam mu koy baal moromu jaamam ba tey itam kon ñu ngi ciy déggee ne mu ngay balu bakkaaram yi dox digganteem ak boromam mu ngi koy balu borom bi nee na ko kenn du bale bakkaar lu dul yow kon jéggal ma samay bakkaar war xam ni te na nga ma yërëm ndax innaka naka yow kat antal gafuru rahim yaay aji bale ji yaay aji yërëmi ji ay baat la yu màgg te loolu juróom yi yëpp solo nañ ko illa aba dawuda yi jëlee ba tey ci aliyin radiallahu anhu mu wax ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ci diggante diggante taaya ak sëlmal mooy ci biir taayam rek اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت دان وخلي عليم ني عليم موكو نيتل ني يونت لولا دان واخ واخ جي موي لان اللهم يو يالا اغفر لي نك ما بال ما قدمت لوما جيتالون سي اي بكار لب وما اخرت اك لوما ودام لو ورا نيو ci ay bakkaar ma war ko def jéggal ma lépp wa ma asrartu ak li ma def ci lu nëbbu ci bakkaar wa ma aalantu ak li ma def muy lu wér lu feeñ ci bakkaar wa ma asrartu ak lépp loo xam ne yàq naa ko wa ma anta alamu bihi ak lépp loo xam ne yow yaay ki ko xam min nii mu jógee ci man yooyu yépp maa ngi la koy balu anta ndax yow de al muqaddimu yaay ki jiital ki lu jiitu wa anta al muaxiru yaay ki mujjal lu mujj wala boog yaay ku njëkk yaay ku mujj laa ilaha illa anta kenn nekkul di kenn di yàlla lu dul yow yàlla mu ne daan na wax lii nga déggee ci rek ne kon taaya daal nit mën na caa teg ay ñaan balaa ngay sëlmal boo miinee baat yi ñu xam ci taaya yem ca baax na boo miinee lenn ci ñaan yi ñu wax itam boo ko ca tegee baax na boo ci tegee salatul fatihi nag mu gën a te baax عن معجن عن معجن بن الأدرع قالت كي صحابي معجن ابن أدرع دفا وخني يننت صلى الله عليه وسلم دغنا جاكا فك بن واي julli ba pare di taaya mu ngay wax naan allahuma inni asaluka ya allahu al ahadu samadu alladi lam yalid walam yuwalad walam yakun lahu kufan ahadun an taghfira li zunubi innaka anta alghafuru rahim lii la waaja doon wax gannaaw bu mu taaya yonente sallallahu alayhi wa sallam ne qad ghufira lahu qad ghufira lahu salaasan waa jii de jéggal nañ ko waa jii de jéggal nañ ko waa jii de jéggal nañ ko ñett yoon yonent wax wax ji lu waa ji wax lu muy tekki allahumma yow yàlla inni man de asaluka maa ngi lay ñaan yaa allahu yow mi allahu yaa al ahadu yow mi kenn rek as samadu yow mi nga xam ne yaa moom sam daani yetu allahu ahadu samadu yépp ay tur yàlla la alladi yow yàlla mi nga xam ne lam yalid jurul walam yoolat te kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahadun amul kenn kuñ koy nurowaaleel ci nekkam yow yàlla maa ngi lay ñaan an taxfira lii nga baal ma duno bi samay bàkkaar ndax innaka naka yow kat antal gafooru yaay aji bale ji arrahimu yaay aji yërëme ji yonent lii la dégg waa ji wax yonent dal dina waa ji baal nañ ko waa ji baal nañ ko waa ji baal nañ ko muy ñett yoon ngeen déggee ci ne lépp lu nit di wax ci ay baat yu nu mel baax na lool ci toppaat ko mu jógee ci na nga ko déggee waaye nga dundee ko ci sa xol nag moo gën a teemat waxoon naa leen ci benn bis waxtaan bu yaatu ñaan ba nga dégg di ko toppaat ak ñaan ba nga tibbee ci sa xol na nga ko yëgee du benn kon bu mu ci mën a doon nga koy ñaan rek fexeel ngay teewlu maana baadiya ndax nga dund ko ci sa xol mu gën a mat ci nànk la ko wax waaye léeg-léeg nga dégg kuy wax wax li ñu war a wax nànk di biralaale tuuti léeg-léeg yëkkati baatam ndax yonent bu daan julli julli gi yellu léeg-léegaan mu wax ay baat yoo xam ne nit dina dégg ne yonent de saar sàngam lay jàng loolu daan na ko def julli gu ñu war a wax ndànk muy julli julli ga te nit ñee xam saar yi muy jàng naka noonu kuy taaye itam léeg-léeg aayut nga yëkkati sa baat ñu dégg la dara nekkul ci nag yellu la waaye baat yi tey jóg léeg-léeg aayut hukumu man lam yastati alqiyaama walqiraa bunta ngi buy jàngale ci ku munul taxaw julli ak ku munul jàng ku mënul taxaw julli ndax lan ngant ak ku munul jàng alquran ndax ñàkk ca mokkal dara an jëlee nañ ci ku ñoo imran ibni xusaynin radiallahu anhu mu ne moom dafa amoon feebar bu ñuy wax bawaasiir feebaru bawaasiir ban feebar la baasuur mooy feebar bi bawaasiir mooy feebar yu bari yi feebar la boo xam ne dafay dal nit ki ci mbaqam mu ne dafa amoon feebar boobu mu ne ma laaj yonente sallallahu alayhi wa sallam ci ku feebar boobu feebar ak jullim lu muy demee yonente sallallahu alayhi wa sallam ne jullil taxaw julli dañoo war a taxaw boo mënul julli taxaw jullil toog boo mënul julli toog juleel ci sa benn wàll ci ñaari wàll yi ndeyjoor nga tëddee mbaa càmmoñ nga tuddee te loolu juróom yépp solo nañ ko lu dul muslim ku jàng téere laxtar yu téere fiqu xam nga moom daf lay jox sew sew yi am yépp ci xaddis ya nga xam ne mooy wax ci melokaan bi moo tax ku jàng fiqu di nga ci fekk atte yu gën a leer lool te fekk atte yépp fit nag ci xaddis yonent bi rek la jëlee sallallahu alayhi wasallam ayaat yi dana ñëw si ci xadaa in nawaafili ci indi nawaafil yi indi def ay naafile ci ay julli jawaazuha dagan gum dagan nga def naafile yi min xoodin ci toog di ko julli maal qudrati ànd ak sax am kàttan alal xiyaami ci taxaw nit mën na am kàttanu taxaw julli toog def ay jullim ci naafile muy lu dagan an ibni abi awfa رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير رواه أبو داود والنسائي حديث بي ñu jëlee ci ibnu awfa radiallahu anhu mu ne jaa a ñëw na rajulun waaye ila nabii ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne inni man de la astatio an axusa min alqurani shay'an man daal mënuma mokkal dara ci alquran yow yonent fa allim nii xamal ma maa loo xam ne yu isi u nii minhu dana ma doy walis alquran xamal ma loo xam ne daal danaa ko mën a jàng wëlis alquran ndax alquran daal mënuma ci mokkal dara fa qaala yonent ne ko kul waxal ne yonent ngi wax waaye kon ku koy wax may ma ma jàng lu mën a wuutu alquran ndax mënuma caa mokkal dara kon la ñu koy wax mu war a wuutu alquran loola lu jar a xam la lu rëy la baat ya nag mooy yii kul waxal ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu wallahu akbaru wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azimi baat yi la ko wax ne wax ko baat yi bu ko waxee bu fekkee moom mokkalul fatihatul kitab mu ne ko waxal baat yi mu wax baat yi baat yi mën a wuutu fatihatul kitab kon baat yi rëy na te it nag rëy na lamboo na sàbbal ci mag yàlla lamboo na sant yàlla ca fa cant gën a rëyee ci baat ba lamboo na wéetal yàlla ci baatub laa ilaha illa allahu ak màggal yàlla ci kowem allahu akbar ak it jébbal dooleeg pexe kàttan lépp mu nekkal yàlla mi nga xam ne mooy mu kowe mu màgg mi kon yi baat ëmb na lépp luy maanaa mu ñuy màggalee borom bi subhanahu wa taala kon baat yi la ko xamal ne ko wax ko boo ko mënee rek dana la doy walit ngay mokkal dara ci alquran muy baat yoo xam ne itam cheikh na ahmad tidiane radiallahu anhu fonkoon na ko lool te kat bu ñuy wax di tudd ay borom xam-xam la ñu wax ci seeni xam-xam ku tudd cheikh na ahmad tidiane yi tudd nga koo xam ne mën ngaa wax ne mooy njiital borom xam-xam yi yépp ci mokkal alxuraanam ci njàngam mu leer dégg téere yi ak ci maqaama yu rëy yi ko yàlla jox kon bu ñuy tudd benn borom xam-xam ci jamono yi jiitu woon di wax lum xam di wax ay waxam di ko dëgërlooyee ci ne yonent nee na wala alxuraan nee na kon di waxu Cheikh Ahmad Tidiane indi nga wax joo xam ne wax du ko gën a rëy daraja ci ay lay yu bari nag yuñ mën a wax buñ bëggoon dugg ci waxu Cheikh na Ahmad Tidiane radiallahu anhu moom baat yi fonkoon na ko ba buy julli bu su jotaan moom la daan wax teg ci salaatul fatihi ab lim mil ama alima wa adada ma alima wa zinata ma alima dana ko ca teg dog caa teg salaatul fatihi ab lim julli bu yàgg la daan def baat yi rëy na maanaa lool mbóot yam làmboo rëy na lool yonent na ko waxal baat yi mu ne yaa rasulallahi yow yonentab yàlla bi haada lillahi baat yi yàllaa ko moom fama liya man lan laa ci am baat yi yàllaa ko moom lan laa ci am loo xam ne man su ma ko waxee ci baat yi dina ma nekkal ndax baat yi ñu tudd lépp yàlla rek lay màggal yàlla rek lay jëmale ak màgg ak kàttan ak dooleeg ni ñu ko firee léegi man lan laa ci am yonent ne ko quli waxal allahumma yow yàlla irham nii yërëm ma warzuq nii warsagal ma wa aafi nii jàmmal ma wahdi nii jubal ma lii la ko yonent wax ne ko yow jëlal baat yi kon yaa ko moom allahumma irham nii warzuq nii wa aafi nii wahdi nii falamma qaama ba mu jógee yonent jàngal na ko li mu war a wax ba mu jógee nag ci jotaay ba qaala mu ne hakada bi yadayhi mu ngay jël loxoom di bamtuwaat baat baat ya balaa mu koy fàtte di bamtuwaat baat yi balaa mu koy fàtte yonent gis ko ca melokaan ba mu fonk li ko jox lool fa qaala mu ne moom yonent fa qaala rasulullah yonent bi ne amma hada waa ji faqad mala a yadayhi min al xayri yiw fees na ci moom kii daal bari na yiw kon nag dégg nañ ko ñu itam nañ ko fonk buñ ko fonkee rek faqad mala a yadayhi min al xayri bi mu wax jëmale ko ci waa ji dafa ñuy dal di nekkal ñu itam allahuma yow yàlla irham nii warzuq nii wa aafi nii wahdi nii baat yi ak baat yi jiitu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliyil azimi ma ne nag cheikh daan na ca teg mil ama alima wa adada ma alima wa zinata ma alima ca sujootam ak salatul fatim kon lii xadis la boo xam ne rawaahu solo na ko abu daawuda wa nisaiyu alhamdulillah يكمل نقص الفرد من التطوع buntangi buy wax ci koo xam ne ay farataam doonu ko matal nam ware woon waaye bari woon na ay naafale ay yiw yum daan def dolli ko ca farata ya buñ seetee farata yooye gis lu ci wàññeeku ñu seet ca lam coobare woon ci xeetu jàmm yàlla mottilee ko farata yooya عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث نجي نجليكو تي أبي هريرة رضي الله عنه مجليكو تي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتنه إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة لنجك تي لنيي سيت تي نيت ني yowmal qiyaam ci seen ay jëf mooy julli li ñuy njëkk a seet ci nit ki yiwam daal mooy ay jullim baxam bu baaxee lu ci tegu mën naa baax waaye bu bonee yàlla de borom yërmande la yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi yàlla sunu borom dana wax malaakaam yi te moo gën a xam moom yàlla wa huwa aalamu lu muy wax malaaka yi un unzuru xool leen fi salaati abdi ci jullik sama jaam bi atammaha ndax matal ne julli yi am na qasaha wala wàññi na ko matewul ko fa in kaanat bu fekkee nekk na moom julli yi taamatan di julli yu ñu matal ci anam ga gën a rafet kutibat ñu bindal lahu ca waaja ne taamatan julli mat na joxe na ko ci nam ware wa in kaana bu fekkee nekk na in taqasa wàññi na min ha ca julli ga shay an dara ci bàyyi woon farata yi bàyyi ponk ya bàyyi sunna ya kon xaala mu ne unzuroo seet leen xalli abdi ndax sama jaam bi am na min tatawwain ci benn xeetu jaamu yàlla ci coobarew boppam fa in kaana lahu tatawwuun bu fekkee am na lum dencoon ci ay jaamu coobareem ci ay nawaafil yiwam xaala mu ne attimu li abdi faridatahu min tatawwuihi mottali leen sama jaam bi farataam yiw matuloon ca ay nawaafilu coobare boppam ci ay yiwam yu dolleeku woon ci fartam suma zakatu misla zalika naka noonu azaka it lum ci motaluloon lam defoon ci ay joxe ci alalam la ñuy seet mottale ko azaka ya mataluloon summa yuqadu al amalu ala xasabi zalika noonu la ñuy jëlee nag mbooleem jëfam yi lépp lu waroon ci moom te matalu ko woon rek buñ seetee lam defoon ci coobarey boppam la ñuy jël mottale ko la waroon ca moom te matalu ko rawahu abu daawuda abu daawuda moo solo boobu xadis wa tirmisi yu tirmisi solo na ko waaye wala suhu baat bam ko solowee moom nii la inna awwala ma yuxaasabu bihi al abdu li ñuy njëkk a xisaab bal jaam bi yowmal qiyaamati bis penc min amali yi ci ay jëfam salaatuhu muy jullim fa in salaxat bu fekkee julli ya baax na faqad aflaha boobu jaam texe na wa anjaxata mucc na itam ci mbugalum safara wa in fasadat bu fekkee nag julli yi baaxul faqad xaaba kon de naqsaay na kon de tàtt na wa xasira amul benn tono ñàkk na fa inin taxasa bu fekkee ne wàññeeku na min faridatihi ci li farataam shay an dara xaala mu wax rabbu borom bi azza wa jalla màgg na borom bu màgg bi day wax ne atti mu na ngeen matal faridatahu ay farataam min tatawuihi ci ay coobareem ay jëfam yu baax mottali leen ko ci ay farataam yi matuloon kon de di def lu baax di ko teg ci sa ay farata baax na lool ndax yiw la buy dolleeku ci jëfu jàmm bi yowmal qiyaam yukrahu fi salaati umurun bunta ngi buy wax ne am na ay yëf dañoo sib ku ko def ci julli du yàq nag julli waaye daal gënul ca minha bokk na ca an nazru ila samaa'i di xool teen jëmale sa bët ca kaw asamaan wal iltifaatu ak di geestoo geestoo boo xam ne nag waxuñ nga jël sa jëmm lépp jubale ko feneen waaye sa bopp daal ngay wëlbatiku di xool ci say wet ak loolu bokkul ci yi ñu bëgg ci julli kuy julli seen asamaan ak gestoo daal luñ sib la ci julli gi xan anasin jëlee nañ ci anas radiallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal yonent nee na maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila samaai fi salaatihim lu dal ay gaay ba ñoom bu ñuy julli dañuy yëkkati seeni bët di xool asamaan fastadda qawluhu bi dalika yonent ba muy wax wax ja mu wax ko ci waxin bu diis xataa qaala ba ñu ne la yantahunna an dalika aw la tuxtafanna absaaruhum ñiy def lu mel noonu nañu bàyyi téenale seen bët di xool asamaan wala boog mu am lu ñëw luqati seen bët kon ku foog ne yàlla ca asamaan la nekk tax la di téen yàlla fu nekk la nekk yonent tere na kuy julli di yëkkati sa bët jëmale asamaan rawaahu alxamsatu ila tirmidi juróom yépp solo nañ ko ba mu def tirmidi wala su muslimin muslimit solo na ko waaye nii la ko soloyee indi na ko nii la ko indee la yantahiyanna aqwaamun yarfacuuna absaarahum ila alsamaai fi salaati aw la tarji'u ilayhim mu ne ñiy julli di teen di xool ci asamaan nee na nañu bàyyi loolu wala boog mën nañoo teen delloo siwaat seen bët ci suuf dootuñu am ay bët noonu la ko muslim solo عن عائشة يجلس عائشة رضي الله عنها قالت موخنة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة لجنا ينتبي صلى الله عليه وسلم تجهتو تجلي فقال موخم ينتبي هو اختلاس الكفل جو خمنة يختلسه من كي كف الشيطان الشيطان من صلاة العبد ci jullit jaam bi mu ngi koy këfal ay yool yu mu waroon a am di ko ko xañ rawaahu solo na boobu xadis al buxaari yu wa nisaa'i yu wa abu daawuda wala huma ñoom ñaar wax ñoo moom wax ji ci xadis bu wér wax ne laa yazaalu llahu muqbilan ala al abdi yàlla du dëñ di jublu jaam bi wa huwa fekk moom jaam bi fi salaatihi mu ngi ci jullim ma lam yaltafit fekk geestoowul jaam bi daal a ngi taxawal jullim di julli yàlla it mu ngi jublu jaam bi fekk jaam bi geestoowul fa italtafata bu geestooyee insarafa anhu yàlla it dal di dëddu jàmba mooy yàlla ngi jëmale ci jaam bi yiwam yërmandeem fekk jaam baa ngi toroxlul boromam ci julli gi jamono bu gestooyee nag toroxlu ga nekkatu fa na xam ne yërmande jooju itam du muyu na jàmbi
taxaw di julli yërmande yàlla lépp a ngi la tiim lépp a ngi la jublu bu gestu amee rek nag yërmande ji it jublu feneen loolu mooy wax ji jëlee nañ ci ibni abbas radiallahu anhuma abbas ak bàyyam ñoom moom yërmande yàlla ji ñu leen di ñaanal radiallahu anhuma mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ci jullim daan na mel ni ku yëngu jëm ci ndeyjoor ak càmmoñ waaye nag du wëlbati mukk baatam mu jëm gannaawam du wëlbati mukk baatam jëm ca gannaawam bëtam la daan def nii léeg-léeg xool wàll mbaa mu xool wàll bu yëgee ne soxla woo naa xool ci wàll gi dara wala wàll gële dara waaye wëlbati boppam mu ànd ak ay bëtam jubale ko gannaaw wala jubale ko wetam loolu moom daaw ko def loolu mooy wax ci kon kuy julli gis loo war a may sa bët ci wàllu ndeyjoor wala wàllu càmmoñ aayul nga def ko la ñu bañ rek mooy wëlu bëti bopp mu ànd ak ay bët ñu jëlee ci anas radiallahu anhu mu wax ne yonente sallallahu alayhi wa sallam wax na ko moom anas ne yaa bunayya anas yonente daan na ko wee sama sama doom yaa bunayya yow sama ndoom ci waxin wolof yow sama ndoom إياك والالتفات في الصلاة فإنه حلكة yow sama doom mooy te lekkul di julli di gestoo ndax di julli di gestoo ak alkande lay jural borom te bu fekkee ne mun loo bañ a julli sax di gestoo fexeel ba boo koy defit na nekk ci julli naafale waaye bu mu nekk julli farata mukk julli farata moom gestoo ca mën naa yàqu julli borom loolu la ko yenente wax sallallahu alayhi wa sallam te loolu termis yi soloo na ko ñu jëlee ba tey ci sayidatu aisha radiallahu anha mu ne yenente sallallahu alayhi wa sallam julli na fi xamisatin laha alaamun xamisa xaalonk la xam ngeen miinu leen xamisa bi ci mbubb bi ngeen miin xaaf moo doon tekki mbubb ba tey bii dana tekki mbubb waaye ban xeetu mbubb xeetu mbubb la boo xam ne dafay am ay couleur yu bari di ciy nekk yenent kon jullee woon na ak mbubb moo xam ne dafa am ay couleur yu bari yu ci nekk waaye ba mu jullee ba pare dafa ne mbubb mi daal mandarga yu bari yi ci nekk daf ma soxlaaloon ci biir julli gi ma koy xool ak ma koy yittewoo ba nga xam ne daf may jëlal sama xalaat bi ma waroon a xalaat ci biir julli ma doyloo di xool couleur yi wala di xalaat ci couleur yi kon daal yóbbul leen ma bii bubb ngeen delloo ko ki nga xam ne mooy abi jeex mi ma ko joxoon waxtu nii bi an ji bi an bi jaa niyatihi bi an bi jaa niyatihi yóbbul leen ko mbubbam mi te andil ma beneen mbubbam moo xam ne wute naag mi loolu yenente sallallahu alayhi wa sallam wax aboo jax boobu ñu tudd mooy abidu wala ñu ne mooy amir ibni xusayfa bokkoon ci waa quraysh di saxaaba boo xam ne bu siiw la woon ci saxaaba yi mu xaddiyaaloon yonente sallallahu alayhi wa sallam xamisa boobu bi ci yonente jullee nag benn yoon rek la wax ne yóbbu leen ngeen delloo kooko te ngeen indil ma mbubbam moomu ñuy wax an bi jaa niyatihi moom mbubb la moo xam ne mbubb mu tal la benn mbubb la moo xam ne benn couleur rek la am amul dessin yu bari yi am ci mbubb ma le kon yóbbu leen ko bi am dessin yi te indil ma bi nga xam ne benn melokaan la kon bañalu ko xaddiyaam ja waaye nee na ko wuutalal ma beneen te it jéggee ngeen yeneen te waxul ne mbubb mu am ay couleur da yàq julli waxu ko moom moo wax rek ne bi mu gën a tànn daal mooy bi am benn melokaan kon ku ci am beneen mbubb mu am ay couleur it bu mu tax mukk nag nga ne da munul julli waxul loolu boo ko amee it mën naa julli waaye nag fexeel ba bu mu la yitteel ba jël sa xel ci julli wala boog boo naree xool yooya bu la mën a yóbbee leneen luy dund itam ci xàmmee goo xàmmee ci melokaan yu bari yi nga xam ne jëmm yàlla ji rek ku moom itam baax na waaye ndax loolu daj na ñëpp yonent moom da doon jàngale rek waaye yonent mu am ay couleur munu ko yàqal daraam ci boromam waaye nag mooy kii